seyduna abu hurayra yal na yàlla gërëm ko wax na qaala rasulullahi suñu sang yonentu yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na unzuru xool leen ilaa man jëm cee ka nga ne huwa moom asfala minkum moo leen féete suuf wala tanzuru bu leen ilaa man jëm ca ka nga xam ne huwa moom fawqakum leen féete kaw fa huwa loolu ajdaru moo gën a yeey allaa tasdaru ba du ngeen xeeb nicmatallahi aleykum xéwalu yàlla gim leen sotti muttafaqun aleyh xadis ju ñu dëppoo baat bii nag baatu muslim la baat bi nga xam ne moom la buxaari ak muslim yëpp dëppoo mooy waxam sallallahu alayhi wa sallam jim na ida nadara ahadukum bu kenn ci yéen xoolee ilaa man jëm ca ka nga xam ne fudila alayhi fil maali gënale nañ ko ci kawam ci wàllu alal wal xalqi ak bind maanaam su kenn ci yéen gisee koo xam ne la yàlla la ko yàlla jox ci alal ak ci bind bu rafet moo ëpp lim ko jox moom aji xool ji fal yanzur na xool ilaa man jëm ca ka xam ne huwa moom asfala moo gën a suufe asfala minhu mi ngi ci suufam Hmm? wala ilaa man woo jëm ci koo xam ne huwa moom asfalu moo gën a minu ci moom mi man au lieu muy bàyyi xel ci ki nga xam ne fuddi la gën a lef na ko alayhi ci moom maanaa àdduna daal bu fekkee ne bëgg nga apprécier li la yàlla jox sant ko ci bul jël sa bët teg ko ci lii ki la ëppale am ndax boobaa doo apprécier li nga am te doo ko sant waaye foo bëgge yéemu ci li keneen am ba mu bëgg la xeebloo li nga am seetal ñi nga ëppale seetal ñi nga tane boo bu fekkee taaru ki la moo la bëgg a xeebloo sa taar seetal ñi la gën a ñaaw bu dee bët yu rëy la la ëppale seetal ñi amul bët far bu dee taay seetal ñi amul cër yu far wala ñi nga xam ne sax mënuñoo dox ku nekk rek sa niveau loo foog ne suufe na suufe am na koo tane wala ñëpp daxoon it yaa tane ñi amagul ngëm yàlla kon nag xoolal ñi la féete suuf ndax nga mën a sant yàlla ñi la féete kaw daal lenn nga leen mën a xoole pour gën a motiver wu ak gën a mën a def lu la jëriñ waaye bu leen xool bëtu ñeete ak yéeme yéemu ba loolu fàtte loola li la yàlla jox bu dee ci côté diine nag dañoo bëgg nga xool ñi la gën a baax